mbokk internet di ziar naa leen mbaa yéen a ngi am jàmm ma ne ko ci cay hmm. Italie pause na Gambie moo yëngu Gambie yëngu na Latrikunda yëngu na loolu la ma waa ji wax de nee dëkk bi Latrikunda la tudd ndeysaan ma ne ko ci cay lii benn waay la waa ji nee na dafa yoroon bitig moom ci boppam fële ca Latrikunda léegi nee na ba mu yoree bitig bi mu nekk fa di jaay am benn freeram boo xam ne ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay mu indi freer bi frère bi ñëw foofu di ko jàppale ci jaay bi nee na moom nag ak frère bi ñoom ñaar kese kese kese kese la seen yaay am ci doom bu góor moom waa ji ki topp ci moom nee na jigéen la mais frère bi moo ci topp maanaam daal ci ni ma expliqué yaayam ñetti doom la am ñaari góor ak benn jigéen ndeysaan nee na bi mu nekkee Latrikunda nag nekk ci bitig bi mu di jaay ba mu yàgg yàlla ubbil ko bunti xewal moom mu dem États-Unis moom waa ji léegi bi mu demee États-Unis mu bàyyi rakk ji ca bitig ba rakk ji di gérer bitig ba foofu noonu ca Latrikunda ma ne ko ci cey yàlla ko eskay ndeysaan cey nee na bi rakk ji di gérer bitig bi ca Latrikunda nee na moom ci boppam mu am soxna daa di koy bàyyi ci seen dëkk léegi bi mu amee soxna soxna bi nekk ca kër ga moom mu nekk États-Unis di liggéey rakk ji nekk Latrikunda ca bitig ba continuer di ko gérer nee ci biir loolu seen benn doomu bàjjan seen doomu ndijaay plutôt mu indi ko muy wéttali moom soxnaam moom waa ji nga xamante ne léegi actuellement nii mi ngi états xale bu jigéen bi di wéttali soxnaam ci këram moom pendant que frère bi moom mi ngi Latrikunda di jaay ci bitig bi ndeysaan nee na ma soxna Faatu ñu nekkee noonu ba mu yàgg ma tànteel sama frère bi pour mu tukki mais nee na sama frère bi bi ma koy tànteel pour mu tukki moom Europe laa ko doon tànteel pour mu tukki nee na ma soxna Faatu tànte naa quatre fois sama frère bi quatre fois tànteel naa ko tukki bi mais quatre fois yooyu yëpp saa yu demee dañ koy refoulé nee na ci refoulé yooyu noonu quatre fois yi bu ci nekk dama ci dépensé quatre millions nee na quatre millions lay dépensé ci quatre fois yuñ ko refoulé yëpp nee na cinquième fois bi nga xamante ne nag ci la tàntewaatee ci la ko yàlla dimbalee yàlla ubbil ko bunti xéewal moom frère bi moom tamit mu daal di far nag cette fois ci mu dugg Europe nee na ma léegi ñun ñaar kese lañu man maa ngi États-Unis jàppale naa ko ba mu dugg Europe te ñàkk naa 4 4 million yoo xam ne saa yu duggee dañ koy réefule cinquième 4 million bi moom laa dépensé waat muy doog a dugg Europe ma ne ko ndeysaan jàppale nga ko de wax dëgg yàlla 4 4 millions 5 4 millions ah loolu moo wax dëgg yàlla jàppale nga sa frère ndeysaan ma ne ko ci cey yàlla cey nee na frère bi nekk Europe di liggéey préciser lu ma ban réew la ci Europe mais moom moom mi ngi États-Unis nee na bi nekk Europe di liggéey moom mu nekk États-Unis di liggéey nee na ñu toog ba benn moment ndeysaan nee na frère bi benn jour rek daal di koy woo téléphone ndeysaan ne ko man de diw dama bëgg a jël soxna nee na mu ne ko fan nga bëgg a jëlee soxna mu ne ko jamono ya ma nekkee Latrikunda ca bitig ba amoon na benn xale bu jigéen bu ma fa nekkaloon xale bu jigéen boobu de laa bëgg a takk def ko soxna ndeysaan nee na moom ci boppam mu ne frère bi bul fàtte sama yaay man ak yow rekk la am ci doom yu góor te boo takkee jigéenu capital ba mun na ñëw mu xaajale ñu te bu ñu xaajalee suñu famille bi bariwuñu te jigéenu capital yi mun nañoo ñëw tas suñu famille bi ndeysaan nee na noonu laa ko waxee daal di juger jigéenu capital ba tëral nee na ma jamono yooyu sama frère bi lu ma wax la wax lu ma waxul waxu ko nee na mu accepté ne ma léegi comme nee nga bu ma takk jigéenu capital léegi yow wax ma kan nga may wutal koo ma wutal dinaa ko takk ndeysaan nee na mu ne ko léegi dëglu ma ma xoolal la dëkk ba koo xam ne boo ko takkee dinañ am ci moom yaakaar nee na ma soxna faatu ma woo sama soxna daal di ko koy expliquer ne ko diw de dafa bëgg a takk jabar mais jigéenu capital la ma proposé woon nee na benn xale bu jigéen bu mu nekkaloon jamono ya mu nekkee ca bitig ba waaye dama ne ko déedéet léegi dama bëgg dem nga demal ma ca dëkk ba nga xoolal ma xale yi foofu koo ma ca mën a tànnal ñu may ko diw bu ko defee mu ñëw ci kër gi wéttali la nee na ma soxna faatu ci noonu sama soxna si ne ma déedéet loolu day sori yée da ngaa fàtte ne sa doomu ndijaay bii nga xam ne à chaque fois yaayam da koy indi ci kër gi pour mu may wéttali fan yi jóge na Sénégal mu ngi fii ci kër gi ñëw di ma wéttali bàyyi ko bu ko defee yow sa rakk boobu mu takku ko nee na nag rakkam bi sax ak doomu ndijaayam boobu xamantewuñu woon ndeysaan nee na mu ne jabar ji ah yow wax nga dëgg xale bu jigéen boobu di la wéttali si kër gi kon proposé ko ba xam sama rakk ji bu ko takkee dina bëgg ndeysaan nee na jabar ji daal di woo xale bi daal di koy expliquer ndax xale bi da jóge Sénégal uniquement dem Gambie pour jàppale euh, jabaru cousin wam boobu nee na jabaram ji nag bi mu waxee loolu xale bu jigéen bi ni ko diw rakku diw la mu ngi Europe dafa bëgg jabar te bu ma sañoon nga sëy ak moom comme ça mën ak yow sax miinante nañu ñu far toogaale ci kër gi benn yoon di wéttale ma ne ko ca est-ce que nee na xale bu jigéen bi tegu ci baat daal di ne nangu na nee na jabar ji woo ko ne ko diw de nangu na nee na moom it mu woo rakk ji ne ko nangu naa bal ba tàkk ndeysaan ma ne ko ca ceey hmm. neex na de nee na mu ne comme nangu na kay léegi li ci des mooy ñu def démarche yi nee mu ne jabar ji damay ñëw Sénégal su ma ñëwee astafulaa damay ñëw Gàmbi vacance su ma ñëwee moom sax vacances lay wax nee na day ñëw Gàmbi vacances léegi moom su ñëwee dina ànd ak xale bi Sénégal ci waajuram waxtaan ak ñoom ndeysaan nee na nag bi ma demee yóbbu xale bi Sénégal waxtaan ak ay parents ñu kontaan ci parce que yaayu xale bi sax daan na ma seet si bi ñëw fa gane si fa buy ñibbi ma toppatoo ko mu ñibbi moo tax bi ma egsee Sénégal tamit pour wax leen ne damaa bëgg sama rakk ji takk seen doom ji teguñu ci baat te ba pare ay mbokk lañu ndax sama sama doomu ndijaay la ñu ne ñoom it ñu accepté daa di nangu. ñu ne ci noonu ma woo sama frair bi daa di ne ko nangu nañu nee na sama frère bi yónnee xaalis ñu takkal ko léegi biñ ko takkalee man delluwaat naa États-Unis nee na bi ma delloo États-Unis ci diggante bi lépp sama frère bi ñëwul ma toogaat def fa quelque temps nee na ma ñëwaat bi ma ñëwaatee vacance encore sama frair bi ne ma léegi comme yow yaa ngi Sénégal yaa ngi bi sa astafurla léegi fexeel xale bu jigéen bi ñu muural ma ko mu sëy si benn yoon bu ko defee nga xam ne man su ma ñëwee vacances rek damay fekk sama jabar sëy si ndeysaan nee na mu rakk ji yónnee ko xaalis nee na mu ñëw Sénégal fekk si fi xale bu jigéen bi indil ko teraanga yi nee na ñu préparé xew bi nee na moom mu dellu gàm bi pour xaar seet bi nee na ma soxna faatu la ma fere ca sama ceetu rakk jooju xaw ma sax nu mu toll nee na jënd nañu ay nag ray ko ma ne ko bien sûr nagu ceet buñ ko jëndee ray ko rek la ñuy mën a def mu ne lu ne jënd nañ ko nee na ma xew bu xumba xumba xumba xumba xumba nee na ndaw si bi mu sëy see sax ci guddi gi man maa jël sama palaasu rakk ji maanaam ci li mën a nekk maanaam maa raame maako kii comme jëkkër ji nekku fi après ñu duggal ko néegam ndeysaan nee na ma soxna Faatu ñu nekk ci loolu bi ñu nekkee ci loolu léegi ma woo sama frair bi envoyé ko vidéo yi ne nag ceet gi neex na vidéo yaa ngi nii lépp jaar na yoon nee na mu ne ma ok merci nee na ci noonu nag xale bu jigéen bi ma jékki-jékki benn jour avant sama vacances di jeex nee na ma xool ko xale bu jigéen bi xaw a jeex ci man nee na ma daan ne ko waaye yow diw lan dal yow dangaa ngaa xaw a jeex ci man rek nee na xale bu jigéen bi yuuxu yenu loxo yi yuuxu daan ne ko da ngay tas sama sëy nga may xool naan ma dama xaw a jeex ci yow lan mooy damaa xaw a jeex ci yow nee na koñ bi ñëpp daje ndeysaan nee na mu ne ma faatu ndekete yow wax naa xay ma ne ko waxoo xay sax moom kay daa metti rek dangaa xaw a jeex rek nee na xale bu jigéen bi daal loolu laa wax ndekete wax naa xay wax naa xay ndeysaan nee na bi loolu amee nee nag mu daal di xaw a neutre ci xale bu jigéen bi mu wàññi ci moom daal di bàyyi mu sedd nee na avant muy dellu ci vacance am boobu encore mu remarqué jabar ji ak xale bu jigéen bi seeni ndab sax bokkatuñ ko ku ci ne daal dangaa beru saru ku waxtaanatuñu defatuñu dara te xale bu jigéen bi dafa daan ñëw nekk jabar ji ñu nekk ci jàmm nee na affaire bi jaaxal ko nena mu daal di woowaat jabar ji ni ko yow dama gis temps yi changement ci kër gi yow ak diw nu mu demee nii nee na jabar ji ne ko diw de dafa xëy un bon jour rek ne ma bu ma laalati ay ndabam nee na mu ne ko dane bu bu la laalati ay ndabam ah comme loolu la la wax bu laalati ay ndabam ne ñoom ñaa ñu séparé wu ay ndab nekk ci kër gi kenn ku ne di di di romb sa sa moroom gauche ak droite nee na ma ma nekk ci noonu sama vacances jeex ma bàyyi leen ci situation yooyu nee na ma delluwaat États-Unis nee ci diggante bi ma delloo États-Unis sama frair bi ñëw ci vacances nekk ak ñoom ba mu nekkee ak ñoom moom tamit daal di ñibbiwaat ñu ne ba mu ñibbee man tamit ma nekkaat ci ci yoonu ñëw vacances nee na sama vacances jot ma ñëw daal di ñibbisi tombeek sama jabaru frère bi am doom ndeysaan ma ne ko ca cey cey yàlla nee na jabaru frère bi am doom nee na bi jabaru frère bi am doom nee na xale bi am ay complication ci wàllu gémmiñ gi nee na ma soxna Faatu sama sama sama ñëw boobu fekk na toog naa États-Unis deux ans et demi ma ñëw vac vacances deux mois Gambie nee na ma tombeek sama jabaru frère bi am am doom nee bi mu amee doom nee xale bi am complication ci gémmiñ gi nee na mu woo rakk ji ni ko sa doom ji dafa indaale ay complication faaw ñu koy defal ay traitement nee na man ma jàpp ne comme papaam nekku fi man papaam laa te man may taawu kër gi rafetul may bàyyi sama jabaru rakk ji moom kese muy yagar yagaree xale bi hôpital te amul ku ko gunge te ñoo comme ñaari jigéen lañu kee bu demee faaw kenn des ci kër gi yor liggéeyu kër gi nee na man naa koy gunge accompagne ko ci les moment difficiles nee na xale bu jigéen bi ndekete loolu it gisee na ko acte bu ñaaw nee na man daal awma ci lu dul ndekete woo na jëkkër ji ne ko waa sa sa sa mag ji xaalis bi nga may yónnee pour ma faj suñu doom ji da ci da cee teg bët waa dafa ma ko iñaanee ba tax na dafa may bëgg a topp hôpital pour xam fu dërëm dugg ak fu ñaar dërëm dugg nee na bi loolu amee nee na jëx rakk ji it nekk ci ndofam gi gëm li li li jabar ji wax daan na ko léegi bu dee def cee iñaan dina xam ne yow sama jabar nga lu ma neex laa lay jox nee na rakk ji commencé di yónnee jabar ji directement nee na jabar ji aussi osé ñëw ba ci jabaram moom ne ko sa jëkkër dafa teg bët li ma sama jëkkër di yónnee pour ma yóbbu ci sama doom hôpital moo tax muy fob sama doom di naan du ko yóbbu hôpital waaye man ndayam mun naa kaa yóbbu nee na moom it jabar ji daal di ko koy nettaliwaat nee nag bi ko jabar ji nettalee nag nee na mu xam ne nag problème yi ñu ngi commencé bëri nee na ndaw si xëy na benn jour nee na jabaram ballaalati samay bagaas xëyaat beneen jour newaat dama teg bët li ko jëkkëram di yónnee nee na ma ne garaawul ndax man lu baax rek laa ci jublu woon kon bàyyil ma bàyyi ko muy yóbbu doomam moo xam nee na ma soxna faatuma ma daat génn nee na mu jóge ndaw si di yóbbu doomam hôpital nee na bi ñu jógee ci loolu ma pare man sama vacances daal di ñibbiwaat États-Unis nee na man li may ñëw vacances moo ëpp sama frère bi lu muy ñëw nee bi mu ñibbee États-Unis nag ndeysaan nee mu jékki-jékki am problème mu jafe-jafe liggéeyam arrêté amatul liggéey mu toog yoratul dara ca États-Unis maanaam mu nga fa daal mais daanaka affaire yi situation yi metti na ndeysaan ma ne ko ci cëy yàlla day am des fois situation day am ndeysaan nee ci noonu nag bi mu amee problème mu jafe-jafe liggéey nee na mu woo jabar ji daal di ko koy expliquer ne ko wax dëgg fa yàlla temps yi moom am naa jafe-jafe liggéey problème yi commencé naa am mënatuma laa sax yónnee moom kay fan yi di ma may ba ma pause nee na ma soxna Faatu toog naa 6 mois yoo xam ne États-Unis xëyuma goruma yattuma may toog awma lu ma yónnee kër ga nee ci noonu awma lu ma yónnee nee na benn jour sama jabar woo ma téléphone daan ne ma man dey dama yeewu tey dem ci fi ñuy tibbee maalo man nag xaw ma luy maalo mbokk internet yi bu ngeen ko xamee ngeen wax ma ko nee na bi mu bëggee tibb maalo nee na nee na wujju peccoor ga bi ne ko fii doo fi tibbee maalo ndax maalo bi jeex na te sa jëkkër moo waroon a jënd te comme sa jëkkër nee na yorul lum la yónnee kon maalo bi bis tey doo ko jë doo ko tibb ñu ne jabar ji woo ko ne ko ah man de damaa demoon pour tibb maalo waa ndox man maaro laa xam maaro mooy ceeb ci tukulóor mais maalo moom xawma lu mu tekki nee na mu ne ko pour tibb maalo nee na wujju peccor gi bi nee na ko doo fi tibbee maalo comme sa jëkkër jëndul nee na nag ci noonu jabar ji ni ko comme yoroo liggéeyatoo yoroo loo yónnee te kii mi ngi bëgg a yeb ci maalo bi bàyyil ma dellu suñu dëkk toog foofu ba sa situation normalaat ma ñëwaat ñu ne ba tey pour bañ problème mu ne jabar ji d'accord demal seen kër nga toog fa ba sama situation normalaat nga ñibbisiwaat ñu ne mu bàyyi ndaw si ci kër gi moom ndaw si mu dem ndeysaan lii de mooy xejal nit mu dem ba dàq la te ay jamono moom moo daan ñëw wéeru ci yow naan dalay jàppale yee yaay pour toog di lekk sa lekk di naan sa naan jamono bi metti na ndaw si noonu la jëlee ay bagaasam dellu seen dëkk wàcc fa gone ga nga xam ne moom ndaw si daanaka moo ko proposé sëy bi ndeysaan ndaw si des fa di yaataa yumbee nee na ma soxna faatu six mois yi ba mu jàllee yàlla dimbali ma ma amaat liggéey ma woo sama soxna mu ñibbisiwaat toog ci kër gi ñu continuer nañ doon def nee na ndaw si xam ne loolu doxul nee na ndaw si woowaat jëkkër ji sama rakk ji ni ko kii liggéeyam dafa tane rek ndax li muy yónnee ba tey mooy loolu léegi lenn laa lay wax tabaxal sa kër ñu dem tuxu fa ñu bàyyi leen ak kër gi nee na loolu sax ba tey garaawul nee ñu tabax seen kër nee na avant seen kër gi di egg nee na des fois ma woo sama rakk ji ne ko damaa bëggoon ñu def benn projet nee su may wax sama rakk ji ci wàllu projet yi nee na rakk ji du ko faale du ko faale de rek la koy may nee bu ko mayee nee na mu xam ne kii naru koo def nee na mujj gi mu dem ba sonn ci loolu mu toog bàyyi rakk ji waxatu ko lenn nañ def ay financement mu bàyyi ko nee na ci noonu ñu tabax seen kër ba seen kër egg mu mu ne jabaram na tuxu jabar ji dem tuxu fa nee na ma soxna faatu li gën a garaaw mooy sama rakk ji lijjanteetu ma sekkatul ak man dara dara dara dara ni mu daan def comme ba muy takk jabar man la laajoon xalaat nu mu daan def di ma laaj xalaat léegi lépp lu muy def amatul ak man affaire nee ma dem na ceeg man sax ba benn moment amoon naa jafe-jafe ma woo ko telefon di ko wax na ma dépanne xam nga lan la ma tontu bàyyil ma wax ceeg soxna si ba pare su soxna si daakooree ma jox la cey yàlla ci sa mag bu la fayal 4 fois 4 millions nga tukki man daal man man man man man man man man man xaaral ma yem foofu rek nee ma toxu nañu ñoo ngi seen kër bàyyi ma ak sama jabar ca kër gu mag ga ñu nekkoon nee na ma c'est maa ngi États-Unis mais sama liggéey demeewul noonu maanaam moom sama rakk ji maa ko yóbbu état maa ko yóbbu Europe mais actuellement nii li ma rawee bëri na maanaam moo ma ëppale fuuf sax du ma du ma du ma ko rusa wax mais lépp wër wërsëgam la te man maa ko fayal 4 fois 4 millions cinquième mu million bi ci la voyage am réussiré daanaka dépensé na ci moom cinq fois 4 millions nii la ko rakk ji def ñu ne bi ñu toxoo rakk ji bu ñëwee vacances du ko lijjanti ca këram lay ne mook jabaram ne ne bi ñu toxoo ba pare sax rakk ji takkoon na fi ñaareel mais nee ñaareel ba forewu fa ay dàllam ma ne ko aawo baa palaasam nee na ñaareel ba forewu fa ay dàllam ñaareel ba tas nee na rakk ji desaat ak jabaram jooju nee na xam nga nu muy def bu ñëwee vacances day ñëw presque chaque dimaas mu rey xar walla béy wala mu rey ay ginaaram yu bëree bëree bëree bëri nee na ma soxna Faatu xam nga nu muy def invité ay xaritam ñi nga xamante ne ba muy metti gisu leen mën la gisoon ñu nekk ca kër ga di noos di yaataa yumbe mu rey gàtt ga ñu rey ko di noos man ak sama jabar ak sama njaboot du leen tibbal bool bu gën tuuti morso du ñu ko yónnee te soxna Faatu maa ko fayal cinq fois cinq quatre million mu dem tukki Europe ndeysaan ma ne ko ñaaw na même boo ko ko fayalul woon ngeen bokk ndey ak baay seen yaay amul ku dul ñaari góor ak benn jigéen rafetul muy lekk ay ndawal di invité ñoo xam ne ba muy metti gisu leen di la bàyyi waaye bàyyi lépp ci loxo yàlla ndeysaan nga ne noonu la rakk ji di def bu ko defee moo xarit yi ñu yendu astafurlaa rey seenub xar rey seenub lépp daal di togg dama dama mbokk internet yi baal leen ma dama juum kat yow sa rak sa mag ju la defal lii nga mën a àttana rey ay nag ay astafurlaa ay xar ak béy di lekk di ko bàyyi noo man non non neex na non billaay nag billaay nag ay sénégalais lañu moom mais lii lépp Gàmbi la xewee nag ca Latrikunda ndeysaan cey yàlla ma ne ko ci cey léegi nag nee na ba yooyu yëpp jàllee garaawul xela ma ni toll waaye man moom palaasu taw ba ma féete man dinaa continuer di fa féete nee na jógee ci situation yooyu ne woon naa leen waa ji ki topp ci moom jigéen la kii di ko def ñaawtee fii doog cee topp nee na ki jigéen ki nag dafa am doom bu góor doom bu góor bi dafa dem ba tollu ci takk jabar mu ñëw ci moom moom do moom moom nijaay ji nga xam ne mooy taaw doomu sër bi ni ko dafa bëgg a takk doomu rakk ji bu jigéen mooy rakk ji nga xam ne war na ko ba mu ko yóbbee Europe nee na ma soxna Faatu bañu ma sama frère bi de xam naa ne jigéen ko wëlbati waaye soow dafa important ma ne ko wax nga dëgg nee na ma ni ko yow sama jarbaat nga sa yaay kese lañu am ci rakk bu jigéen lenn laa lay digal xam naa ne diw sa doomu ndijaay diw la maag sa ndijaay diw ñoo bokk ndey ak baay mais doom doomam bu ko takk booy takk takkil feneen ñu ne xale bu góor bi lànk ne ma ndijaay sama doomu ndijaay diw bi laay takk nee na ma ne ko baax na nee na ma woo sama rakk bu jigéen bi it ma ne ko sa doom ji bu ko dugal ci doomu diw du diw laa bañ mais kee jikko yaayam te soow dafa foor moo tax ma ne bu ci dugg nee na rakk rakkam bu jigéen bi ne ko bàyyil mu takku ko nee na ma ne leen ah ñu ne waaw ma ne leen baax na na ko takk nee na ma man ànd ci tere naa leen ñu të nee na ma bàyyi nee na juuru takk ga ma dem fa di ko man maay taaw ñu jox ma kàddu naa naa jël parole nee na bi ma jëlee parole ma daa ne jigéen de buy sëy ci kër na fexe boole ñépp waaw ah, bañ a xaajale ñépp ndax àddina amul solo nee na man bi ma koy wax fàtte woon naa ne sax kii ma tànnaloon sama rakk ji nii la ñu def nee na rek ñu jël wax jooju def ko guerre naan damaa ñëw ci kër gi di xas jabaram fii la xar yi dugg def ko guerre bu rëy a rëy rëy rëy rëy nee na depuis loor nag ma ne léegi da taaw sax mais suñ ma woowatee ci dara su ma demee ma jàpp sama gémmiñ suñ ma woowul aussi ma daal di toog jàpp sama njàmbur nee na foofu nag bëgg na yéen mbokku internet di ngeen wax ko ndax moom mooy taaw te def nañ ko nii mu toog di seetaan wala ba tey mu continuer rôlu taawam rek ndax dafa jaaxle su nee a ah, ñu def ko xay bu ne oo oh, jabaru rakk ji def ko xay te bu ko defee xay rakk ji da ciy ànd ak jabar ji wax rakk ji waxatu ko tàggootu ko lijjanteetu ko bàyyi na ko daal daanaka mel ni ku ko bàyyi àddina ak te lii rek mu wax nii moo indi problème bi ndeysaan cey yàlla nee na ma nag fi histoire bi di jeexee mooy xale bu góor bi nga xam ne sama jarbaat la dama ko tere woon ne ko bu mu takk doomu diw boobu sama doomu rakk ji mu bañ nee na ma dafa ñëw barkaati démb ça veut dire que histoire bi di taxu koo yàgg ni ko ndijaay damay fase diw ndax diw mënatumaa def ak moom nee na moom it mu ne ko doo ko fase ndax waxoon naa la bu ko takk nga ne di ko takk diw mën ak diw ak sa yaay ñun ñett ñi kese la suñu yaay am ñoo bokk ndey ak baay soo bëggee mm. takk doomu diw ma tere la ne la bu ko takk xamal ne am na lu ne ci biir parce que ni yaay ji ñëwee tas suñu famille bi noonu laa doon bañ ndax soow dafa foor nga dëgër bopp léegi nag comme takk nga ko sëy bi du tas ñene xale bi dem xale bi toogaat woowaat ko téléphone ne ko sëy bi tas na fase naa ko nee na bi ko xale bi nee fase naa ko mu ne ko dégg naa la nee na démb yaayu xale bi ñëw ci moom mooy sëram bi mu bokkal ndey ak baay ne ko diw de mujjee naa fase diw loo ci xam nee na moom it mu tontu sër bi ne ko lu ma ciy xam dama leen waxoon bu leen ci dugg ngeen bañ ñun ñett ñii kese la suñu yaay am su sa doom bëggee doom suñu raq bii ma ne la déedéet parce que na yaayam mel moo tax mais dégluwu leen ma woon léegi nag man xawma lu ma ciy wax foofu tamit mu ne mbokk internautes yi lan ngeen ko fay conseiller ban taxawaay la fa war a am ndax moom kat dafa tere woon jarbaat bi jarbaat bi dëgër bopp te jarbaat bi ba bët yu xonkaate encore ci moom la dellu beneen bi aussi mooy rakk ji nga xam ne moo ko jàppale woon mu dem états uni mu dem Europe rakk ji war na ko amatul ak moom affaire lijjanteetu ko bu ko demandé aide sa rakk ji ne ko xaaral ma laaj soxna si léegi nag nee na moom ndax rôlu taaw bi mu doon joué di boole di dajale di wax mu continuer ko wala moom it mu toog jàpp njàmburam ca këram bañ a liddanteeti daray famille bi toog seetaan leen lu ñu def baax na lu ñu deful baax na tey lii moo nekkoon histoire waa ji fële ca Gàmbi mu nekk lu doy waar da ngay bokk nit nga dimbali ko mu wor la nga bokk ak moom bañ koo dimbali mu ne sàmba alaar nga yaa ngi dimbali jàmbur yi waaye xam nga ne waa ji initiative bi mu amoon mooy comme ñett la ñu bëriwuñu ñu booloo doon benn xanaa fenn rek nee na ma soxna faatu fenn rek laa réccu fenn rek laa juumee mooy lu tax ma naan jigéenu capital ak jigéenu euh, dëkk ba ndekete bon bon la jikko jikko la waa ji moom teel na koo reconnaître nee na su ma xamoon ma bàyyi jigéenu capital ba mu waxoon da koy takk mu takku ko léegi man critiqué naa jigéenu capital ba indi suñu mbokk ndekete yoo ndekete yoo suñu mbokk boobu mooy tas famille bi ma ne ko yaakaar nga amoon mu tas sa yaakaar lii nag dañ ci jëlewaale ñun ñëpp leçon de vie nañu bàyyi di juger nit ci dëkk ba mu dëkk dëkk déterminé wul ne nit ki dafa bon non non c'est dañ koy faral di wax ay bàyyi leen jigéenu taax yi ah jigéenu taax yi am na ay sëykat de ñu mën a sëy ñoo xamante ne dañuy sëy ba dee affaire bi problème de éducation kese la maanaam boo nekkee jigéenu taaxit ñu yar la teg la ci yoon bu njub foo mënta sëyi njub nga fay yóbbu soo nekkee jigéenu feneen it ñu yar la ci ci ci ci ci reewanda wala ñu yar la ci ndëngate ndëngate ngay nekk su fekkee it doo jigéenu taax dëkk ba nga dëkk it ñu yar la fa ci njub ci njub ngay nekk moo tax du question dëkk ba ngay dëkk mooy yor sa jikko dee mooy yàq sa jikko déedéet loolu nañ ko bàyyi mu nekk leçon bu am solo waa ji nee na ma soxna faatu bu démb doon tey duma taamu ay jigéenu taax ak jigéenu mbokk ndax tey ji sama propre mbokk la ma doon bañ moo ko def ma ne ko yàlla baax na nattu la day am yàlla ñu yàlla dooli sutura jàppale waa ji ba mu retrouvé wu frère ak sëram bi nga xamante ne ñoom rek la seeni waajur bàyyi mu bëggoon a mu taxawoon taxawaayu taaw mais finalement seen benn doomu ndijaay ñëw yàqu ko ba rakk ji mu yóbbu woon amatul ak moom affaire mu nekk lu metti waaye nag histoire bi metti na ko soxla na conseil mbokk internet di ngeen ko ci leen di jaajëfal bu baax a di tey lii lañ leen indiloon di nuyu suñu DG Sey Latir ñu ngi koy ziyaar bu baax a baax ma madame Diouf ñu ngi koy nuyu bu baax a baax moom tamit di nuyu nag tey sama xarit Kalidou Cissé Kalidou Cissé nekk leader de la génération AIS fële nekk tamit euh, professeur fële ca lycée Ahmadou Ndak Seck bu Thiès maa ngi koy nuyu bu baax a baax monsieur Kalidou Cissé ziar naa la bu baax a baax ñu gën laa xam nag ci monsieur Cissé maa ngi lay nuyu bu baax a baax xanaa tey kontaan nga ay ca monsieur Cissé le leader de la génération ays nekkal si jàmm ziar naa la bu baax a baax a baax su ma ci jógee daal di nuyu kii di Mariama Sow de la paax de ta fille. astu Mariama Sow de la part de ta fille astu moo lay nuyu di la ziyaar bu baax a baax astu nee na ma soxna Faatu nuyul ma sama yaay kon nag nuyul naa la sa yaay Mariama saw ñu ngi koy ziyaar bu baax a baax a baax di nuyu Dame Sall nag di ko nuyuwaat bu baax a baax chapeau bi saa yu ma ko solee rek xam leen ne Dame Sall laay delloo njukkal borom foire internationale ci Thiès moo ma jëndaloon chapeau bii ne ma dee ko defee émission nettali ay ca monsieur daam ziyaar naa la bu baax a baax merci beaucoup mbokk internet yi lii lañ ne moo Mor Seck moo nekkoon na ci caméra bi Aïda moom it ci caméra bi Jean moom it ci caméra bi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax équipe bu technique bu Thiès Info yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen joxaat dig daje ci yeneen i nettali d'ici là portez-vous bien et bonne suite de programme sur Thiès Info ñu daal di koy terminer ak suñu kaasu café